yàlla yërëm te xare ko ci àjjana firdaws yi gën a kawe ñu gën a xam ne tuuse ci bis bi rek moom ci la waaye ku denc yonent bi keneen taxul muy wax waaw loolu daal bokk na ci lu ñu gën a marqué ci bis bi mais nag lépp dañ koy delloo ci yàlla rek di sant yàlla bari na loo xam ne jëmal ngeen ko tey dañu ni ci seen papa muy Baye Aly Ndiaye ci ngeen ko gisee ban absence absence bi nga xamee ne yàlla def na nekkatu fii première gàmmu nan ngeen ko dundee. waaw xanaa jël yàlla rek. teg fa. te xam ne lu am yàlla. bu mbaax doon tax a dem du dem. bu doon alal mooy taxa dem dem baale du dem. mais alalu yàlla la woon. ndénkaan yàlla ba mu ko soxlaa ñëpp la ñuy ñàkk na fi nag ndax nit ki nga xam ni moo moo la tette jàngal la wan la fi ngay jaar ba mu ñu mën a si fii soo gëstoo gisatu ko dina am lu la lu la manqué te dina la metti mais nag dañuy jël lépp delloo ci yàlla. bari na taxawaay bu mu daan am ci bés yu Euh, ñàkk màkk ñàkk présence am ban moment nga ko gën a sentir grand Massata ndax bu daan jàng kaamil moo koy jiitee waxtu julli bu jotaan moo koy jiite bari na loo xam ne wax dëgg yàlla bu ngeen koy jëmal moo leen ci daan. non bu weer bi teroo rek la su la yi dem ci moom bu teroo ñu ne weer bi feeñ na ngi jëm ci burdu war a commencé dem jëndi ay nag ci la suñu xel gën a dem ci moom. Mm-hmm. ndax bàyyi la suñu xel sax du jug ci moom. suba ngoon bu dégg bëccëg suñu xel moom ngi jug ci moom. waaye day am bis yoo xam ne su suñ ko dëlmalee il faut ñu gën a. focaliser ci si jëmmam. waaw mm-hmm. waaw loolu am na. macha allah. Ah, ñu ngi lay masaw ci li mu ko góor gi fekkee daaw fekkee wu ko ren ndogalu suñu borom la. Mm-hmm. mais tey euh, relève euh, ba Baye Alé est-ce que dana yomb parce que ñu daan taxawee ak ñu mu fonkee woon bis bii. non relève Baye Alé moom yàlla ba mu ci tegee loxoom du tey. Balla dafa am loo xam ne ay baayam amu ko mooy baayam daraan def doom fekk ko ci fekkewul ay doomam fuñ ko defee te Bayaale avant muy génn àdduna ay doomam aw nañ ko surtout Aziz Ndiaye ndax yàlla dañu dafa jur am dafay jur ba fi dafay am ak li ñu jur defar bokkul jur bàyyi fi ak jur defar bokkuñu Aziz macha allah dañ koo defar baayam da koo defar sëriñam da koo defar baayam noppul woon na bu yàgg ci mbiru gàmm lépp Aziz moo daan def kon bàyyale na sant yàlla ndax am na lu baayam amul ndax dund na avant muy génn àdduna xam la relève te baayam génn na ba mu am ay at relève am feeñul sama papa tëdd guddi bàyyam feeñu ko ni ko aale li ma leen bàyyi loon lépp yéen a ngi koy sàmm yéen a ngi sàmm Maroc mooy seen tool yi ñu nekkoon suy commencé day tuut waaye suy dem day law lu dul dëgg nag buy commencé day bëri coow waaye mujj ji hoo rek moo ci mujj moo tax man la li ñu jur bàyyi fi ak li ñu jur defar bokkul li ñor tab bi ak li ñu gësam bokkuñu lii ndono la te ndono day dëgër ndono day dëgër boo koy def doo ragal doo yoxeexi te lii ragal mënu ko yaafus mënu ko Aziz nañ ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér gudd fan ak wér nag ci la lépp xaj ñu ko ñaanal yàlla nag dinañ ko jéem a tungoom ko ba lu mu jotul sax jëm ko yëkkati mu jot ko loolu lañ koy ñaanal yàlla. ñaanal góor góor gi moom di am njort mu rafet ci moom rek ndax àjjana yàlla moo ko moom mooy soob ku ne mu dugal la fa ku ne nit a ngi àjjana da ngaa wax lu la neex rek mais da ngay am njort bu rafet te ni ñu am njort bu rafet ci moom ndax jëf ju baax du doon def ci doomu aadama yi ak lim doon def ci nit ñi yàlla bu ko yàlla neenal. yàlla bu ko cat jiitu ci bàmmeelam ndax cat baaxul dina topp nit ba ci bàmmeelam te yàlla na ko ci yàlla musal yàlla na ko yàlla aar fa mu ne yàlla na ko yàlla wanaleeg Seydina Mouhamed yàlla na ko yàlla wanaleeg lekk Babacar Sy Ba yàlla na ko yàlla wanaleeg maam El Hadj Malick Cheikhouna Tidiane Chérif loolu lañ koy ñaanal yàlla di leen wax wasalaam kontaan nañu yàlla nañ yàlla musal seytaane yàlla nañ yàlla musal ci pexey noon yàlla buñ gis suñu bopp ci lii. ci barke Serigne Babacar Sy yàlla bu kenn wuute yàlla nañ ko fekke ay déwéni déwén déwén ci barke a Rasulullah sallallahu alayhi wasallam asside jëf li ngay génn wàllam looy yëg non damay sant yàlla rek dul jële sallallahu alayhi wasallam insha allah lu mu yëg dee bëri ndax ñu doon fekk démb tey a ñëw Massar Ndiaye mooy jar ñun macha allah as ba tey bàyyiwul ay xaritam lañu bi ñoo xam ne am as tuut soppeeku sopp ay xarit bees mais a macha allah bëgg dem mais ñun suñu gàmmu tey moom macha allah neex na mais neex a neexul ndax suñu papa moo fi manqué danaan tuuti di nga gis mu ànd na ñu ngi si nag yi fii mais dañ koy ñaan rek yàlla ko yàlla xara ajjana fii daw si ñaanal njaboot gi Masata Ndiaye mi xam ne mooy yéen yéen yéen yéen wi yàlla ko yàlla ay fa lépp Abdou Aziz Ndiaye allah ndax mosu soppeeku ku baax la wax dëgg yàlla daaw nag yi gis nag nag nag yi nii daaw ren 25 nag jox ko jox ko néew doole fii ren day rey 50 nag encore jëm rek nañ ko ñaanal gudd fan ak wér ñëpp gàmm si jàmm ñëpp si jàmm suñu yaay xuli xëjoo jóbit yàqu si dara ndax yàqu si dara maire bi wax dëgg yàlla lu baax lay wax chaque jour lu baax lay wax chaque jour suñu àndandoo ak Aziz wax dëgg yàlla te xam ne ndey moom dafa fort dafa jege doom wax dëgg yàlla ñu koy ñaanal mu gudd fan ak wér ni ñaanal jabal gépp ñoom Baye ak Amet Njaak xale yëpp laay lim ku lim da ngay jum mais ñëpp laay ñaan wax dëgg yàlla jox cër cër bi ma jox dafa doy sëkk man wax dëgg yàlla ma jox cër yi ma jox cër waaw ndax dellu ko sama xol sedd na sama xol sedd na ñëpp gàmm si jàmm ñibbi si jàmm alhamdulilah jërëjëf Malick kon ñu topp ki nga wër ki ki nga xam ne nag moom moo jëf-jëf ci nag mooy Abdou Aziz Ndiaye fu mu nekk danaa ko fa fekk ndax nit mën ta jëf-jëf ju toll nii te duñ ko gis pour gis ko nii rek doyul man Fadal maa leen ko dig dinaa fexe fa Aziz nekk ma fekk fa nan dem ma wëri Aziz gàmmu 2023 mbokk yi ñu ngi fii ci Tivaouane Tivaouane nag buñ ko waxee bokk na ci jàmbaaru Seydil Hadj malek Sy yi nga xam ne ni dootuñu ko présenté ci réew mii mu am taxawaay lool ci ëttëb Seydina Mouhamad waaye am taxawaay ci ëttëb Serigne Babacar Sy mooy Abdoul Aziz Aly Ndiaye Abdoul Aziz Ndiaye nag xam ngeen ni këram ñu bari ci ay mbokkam ay soppeem ay am di jàmmam dañ fiy faral di teew di li waral ñu teew ak koo xam ne rakk la ci moom ñu koy wax soxna euh, Khady Aly Ndiaye soxna Khady euh, ñu ngi lay nuyu di la gërëm bu baax a baax ci occasion bi ñu may di la ndokkeel aussi Euh, ci bis bi nga xamee ni ci la ñu nekk muy bisu gàmmu. waa kay amoo bilaay mën na si daane rajim ginnaaw bi ñu sant yàlla dul ci bi sant suñu ñaari waajur di sant suñu euh, baay bu baax ba baay Alla yàlla na ko yàlla xare aljana fa mu jógee fa mu fi mu jógee euh, yàlla na ko gënal fa mu jëm ci darajo yonent bu tedd bi suuf ci waaw yàlla na oyof ci kawam ñu sant nag suñu yaay ajarat ku jojoo di xam ne lii lépp moom la vraiment gàmm 2023 macha allah gàmm gu ni ñu ko commencé ci bisimilahi rahmaani rahim yàlla nañ ko yeggalee ci alhamdulilah ñu sant yàlla bu baax a baax a baax alors euh, woote ñu bari ci ay xaritam ci ay am di jàmmeem ñëw ci kër gi ku ñëw ci kër gi gis dina gis ni mbooloo mu baree bari teew na fi ban yëg-yëg nga am ci ñi ñi nga xam ne tey ñëw nañu euh, gàmm si wante tamit dalal ki nga xam ne mooy Abdoul Aziz Aly Ndiaye waaw ndax gàmm moom buñ koy wax dañuy wax ni gudd yonent bi la rawatina ñu nekk ay taaliba cheikh ñu yar taalibi Seydi Aboubacar si sam papa jokk woon ci Al Amin dëkk Seydi Alhaji bi Abdou Aziz lu mu min la ndax Abdou Aziz woon ci Al Amin dëkk Seydi Alhaji bi Abdou Aziz lu mu min la na Abdou Aziz yaakaar naa bi muy ànd ak sam papa du yóbbu ay nag boobu amul sax cinq ans di jàpp ci buumu nag bi kon li muy def da koo miin da cee juddu da cee yaru xolam yaatu du lu ñu bokk ndey baay moo tax waaye ku laa biir la Abdou Aziz kër gi lu mu fees doyul lu gan ñi ñëw doyul bu gàmm jotee dañuy xam ne dafa am àll boo xamante ne ñun sa daf ñuy jaaxal lu mu def da koy xeeb Aziz bu gàmm jotee addunaam ñun tuwaawoon am nañ presque fukki fan ci tey te bañ fi duggee ba léegi saa ñu yeewoo dañuy togg ay mbana bañ duggee tuwaawoon ba léegi yaakaar naa mënuñu xëy te yeewu togguñu juróomi mën a añ wala juróomi mën a reer chaque jour mu yeew ay nagam macha allah def ay teraangaam def ay berndeem Abdou Aziz rëyul reewul manqué wul de respect ku ma gis dana la accueillir tekki du sàmb àllaa lii muy def ci waawan ci ñun la njëkkee man barki démb laa jóge umra te maag moom ñoo ànd ak jabaram Miss Ndiaye te yóbbu na ma màkk depuis 2015 te xale bu ndaw laa maa topp ci moom barki démb la ma yóbbu umra ba maa jógee umra un mois mu jël sama ñaari doom yóbbu leen Dubaay vacances sama doom yi léegi léegi la leen jox ku ne sa valise jasneer kon kooku du sàmba àllaar ku mu bokkal ndey ak baay yóbbu na la màkk teral yaayam muy ko am kilifa bëgg ñëpp kon ñun li muy def dañ ciy kontaan ñun gàmm su musaana jot dañuy solu di simmee teg suñ ay valise waaye fi nga ñu fekk moment bii première gàmm bañ juddoo ba léegi sama papa wute ko tey lañ am ndax ñun ba ñu ñëw Tiwaawan dañ ñuy boor ñu ay xale yu ndaw ñu tàmbali ñu Tiwaawan kon boole ñu fekkee ñu sol lii ngeen xam ne dañoo jóge ci naqar sama papa bi mu fi jógee léegi sama yaay sax si meegul 4 mois 9 jours lay door a am tay kon lii rek moo jaadu ñu futteeku sol ay yére yu oyof jàppale Abdou Aziz ndax bu dee ay valise liñ fi indi ci ay yére mënuñu ko sol bu dee or liñ fi indi mënuñu ko dakk bu dee daal mënuñu ko sol waaye nit bànneex ak naqar mënul nekk bu sama papa génnee àdduna dañuy wàññi suñu degré bu baax a baax wan ni te Aziz dama nekk xaritu papaam sama papa bëggoon ko lool ay bëgg sama papa lool ba gàmm jotee foog ñu takku bu ñu doon takku benn dañuy takku fukk ndax góor ga ca bari sàq tey jii lu ñu def ci gàmm gi fa mu tëdd dana kontaan ndax sama papa dafa bëggoon gàmm nangoo sonn ci gàmm di ki daj lu nekk kon tey boo ñu fekkee ñu oyofe nii ñun mosuñu dugg ci waañ ndax Aziz dafa wax ni bëggum togguloo ma leen yàquloo ma leen defloo ma leen dara ay traité

pardon wala mi ngi jóg ci tabaski xarum tabaski Aziz social bi ak Amine social waaye nii sama rakk bi nga xam ne sama féete la jox ma ca guddi ga ba pare ci ne la defal ma lu daal dafa jàpp sama loxo ba ñëw ci gardien ni gardien kii bu ñëwee suba yóbbu ko tey bureau jàpp Aziz dañoo sama rakk ja teg ma ni ma dangaa bokk ci bitt bi da ngay naan ci meew ma ne ko ba sama baay ba demee àjjana nu ñëpp def laay mu ni ma la nga nu defal la nu dàqal la ñëpp defal ndax dangaa toog dend mu assisté juróom-ñetti fan al alim social Aziz bu ñu jooyee nga jooy bu ñu compéré ngoon la ko ngoon dama loolu rek ma war joor sama baay kër joo sama baay ba kër jéemu dëkk yaa ko tëdd yaa dama bant booba yéexewul ba nga dam fal fula taa dem defal ko kon kon ñëpp am nañu ko boole wax du ci boole guddi tey bi nga yegsee nee na ma Pape fexeel ma gisante ak Elimane Lam uh-huh. parce que ñun ay influenceurs lañ ñun ñoo bokk gaal gi uh-huh. man yow Mbaye Kouthia ñëpp ñoo bokk gaal gi uh-huh. mais suñu papa ngi suñu directeur man nee naa xa leen rek laa lay ñaanal fan bu gudd lépp lu fi nëbb loo doon bañ nit ñu jël ko man dinaa koy jël wane ko ba may tëj sax tëj ma parce que yow bëggoo ñuy wax ci yow mais dafa toll foo xam ne fa ñu jël lu bon li di ka nëbb di jël lu baax di ko wane te moom l'homme social la waxal mm, asalaamaaleykum wa rahmatulah nag suñu bàyyi la <laughs> bàyyi nag ku ñu bàyyi la ndax wax dëgg yàlla jamono toolatul foofu nga wax koo xam ne amul la benn njariñ ku nu amal njariñ la dinu dimbale wallaahi wal fa waaw dañu dimbale ñun nag suñuy làmmiñ ñoo ko moom suñuy làmmiñ ñoo ko moom ku nu amul njariñ wax la ku amul njariñ duñu la xas duñu la def dara ñu téye sunu làmmiñ moom nag mi ngi may dimbale ci lu bëree bëri taw ku oyof la nag ndax heure boo ko mbaqee wakaal mu tontu la te bu ko neexoon boo ko waxee loo xam ne damaa jàppale seek ak c'est-à-dire wallaahi wal quran mm-hmm. te man ma jox ba ma joxee numéro ba ma ko woowee léegi ma fëlëf foo jëlee sama numéro mm-hmm. te bu ko neexoon mu may laaj foo jëlee sama numéro affaire mais deful loolu mais di taxaw xale yi di taxaw seen euh, waaw ah. mbay mbay sëñ bi nee na ah. sëñ bi nee na boo nekkee nit mu tane la dimbali woo ko uh-huh. mu dem ba réer la uh-huh. bu ko wëri dafa dem ci keneen ku ko dimbali ñun fi ñu nekkoon uh-huh. loxo yu tilim la ñoo ngi soog a dem ci loxo yu seddi maa ko wax yàlla yàlla bu doon kanam te wéral doole am nga jàmm waaye sant alhamdulilah naka réew mi waaye ñu ngi sant yàlla bu nga bokk ak Abdou Aziz euh, ak baay muy jëf-jëf ci toll nii tey sa frère tey euh, looy yëg bu ko Abdou Aziz day yëg day jëf ni ñëpp di ko ñaana looy yëg euh, dama ci am fierté parce que bu xëyoon am ku mel ne parce que nit ku baax la li muy def yombul ku koy def jël ay centaine de millions di ko def ci benn bés. mais ci li ma xaar mooy ki mu koy defal jar na ko muy bésu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw ku ko defal doo ko rek doo am tànk ginnaaw Aziz nag nit ku baax la. ñu koy ñaanal li mu mën ren yàlla mën lu ko raw déwén quoi. di ko ñaanal ñaan ñaan la lañ si moom quoi. ñu ngi jëf ci li muy rëy rëy rëy lépp da koy jox jaamu yàlla ñi nga xam ne seen loxo jot seen ginnaaw. dëgg la xëy boo xoolee ceeb bi ay camion la fi wàcce ndox bi ay camion diwin di ko may jaamu yàlla moom lu mu am Tivaouane moo ko gënal moo tax ñun tamit lu ñu am rek Tivaouane moo ñu ko gënal. sa diggante Abdou Aziz sa mag la mais tam ngeen affinité muy sa xarit. Mm-hmm. waaw sama la moom ay dañoo dañoo am sax. ba suñu wax sax maamam bariwul. ba bàyyi te du ma ci eh, mu jub bis boo xam ne tey bis capital la muy diggante ak Modou Lo gisuñu la Gambie foo ne woon ñëw naa de <laughs> dama làqatu woon rek. mbaa da ngaa yor ay da ngaa yor ay jinne léegi. def asambaay ba si kanam hmm. waaw. mais ñëw nga Gàmbi. ñëw naa eh, jaaxal mooy combat bi enjeu bi ñu gis ni ñu bari jàpp ni ñi naan Modou Lo mën ñi naan Ama Baldé yow mu jege amaa Baldé tey lan nga gis ci Ama. waaw Ama mun naa ne mu ngi nëbb mu ngi nëbb Sénégal lu bari muy ni mu mel ak jikkoom ak dooleem yëpp mu ngi koy nëbb Sénégal bala ñoo xam Ama lan la indi wala Ama lan la mën incha allah war a bi sifle am teg takk jaaj yi takk ngemb li ba dogali def 100 mètres ci nationale boobu la ñuy xam kuy pël bi pël bi mënuñu ko xam léegi déedéet. Ah, ngay ku jege ama ñenn ñi ñenn ci ñi nga xam ñooy def analyse naan ñenn ñi ne ama parewul ñenn ñi ne ama pare yow bi nga xam tey ku ku jege ama nga xam nga ne mbër mu mbër mu pare parewul yow ñoo gisee ama parce que li 5 bareetul. waaw li 5 bareetul li des bareetul mais xam nga tamit bu njëkk ba dañoo waxoon ama moo njëkk a pare mënuloo parewul mënuloo dem defaru jiwaat blessé tey làmb moo mooy mooy loo xamante ni kenn mënu koo natt quoi ku nekk sa favori ku nekk ak sa ordre kente toute façon moom li ma la mën a xamal mooy bu arbitre sifflé dañuy xam kuy pël bi wallahi xasim pare na moo gën a pare ki ñuy wax sax ndax lim moom feebaram daanaka ay ay un mois la wala deux semaines toog na lu yàgg loo xamante ni mu ngi woon entraîné maa ngi woon ñu doon ànd entraînement ak yeneen gars yi ay Amar Gueye ay yeneen ak yeneen ma fekke ko gis ko muy entraîné kon suñu nee ma parewul wala am na lu ko dal daf may jaaxal te la ci stade bi daanaka su ma ko santul tamit keneen dama koy sant lu mu bëgg suba ba ngoon maa ngi si man tamit lu ma bëgg mu ngi si nit la koo xamante ni làmb sax dépassé nañ ko maag moom di ko ñaanal yàlla yàlla ko yàlla may jàmm rek incha allah nekk ko jege ñu gis ay engagement nga bi benn bokk ci comité musique bi daan def ay affaire a loo kii da ngay daw kii kaay nag ma Malick Malick maa yooyu xam nga géwal xamul nag ndawal la xam géw Malick kaay Malick badukaay géew Malick maa yooyu géewal xamul nag ndawal la xam nag bi daa maam ma jóg maa yooyu parce que social bi malade dan maa soxla ah ñu bëri di ma xaar mooy ah, ah, ba a jaaxal mooy bàyyi mi nga xam ne dugg na si combat bi commencé jàppale ñu war a sauver bés lu bari loo xamante ni daan naa ko def mën naa ne su ma ko yokkul du ma ko wàññi waa mën naa nag mën nañ ma bañ a gis mën nañ ma bañ a gis yu bari nag mais lépp lu ama nekk wala pour am ndam rek maa ngi incha allah. parce que dañ dañuy gis des fois bu Ama Baldé ci biir géew wala Ama Baldé préparation ñu gis Badou ñu gis Badou Malick baytul nag wi ñu gis Badou daan engagé wu jël des jël bis bi sérieux ñu gis li ma jaaxal mooy gàmme ci close yi nga nekkoon wala ci suufu siège wala ci xam nga jinne nga nag. dama <laughs> soloon kagul nëbbatu def masque bañ gars yi xàmmee ma incha allah war a nañ ma gis le cinq incha allah. waaw dinaa feeñ ànd ak ama gunge ko yàlla may ko ndax couronne bi lañ soxla. nañ jël maxane bi rek. li jaaxal waa parcelle nee na ñoom dañuy ñëw teg couronne bi mais dañ a aptu mopp doole moo dàq te waaw defal lañ benn or ñoo ngi koy defar léegi bu pare. moom bu nag moo indi basam ñu nañ ko indil or teg ko. waaw bu ñu paree jël ko. incha allah. tey kan mooy Ama ci wàllu sañ-sañ nga xam ne ju bëri neen ileeru gumba la xàmmewul jaajëf joo ragal newul ci moom tey yow mi ko jege tey. waaw pël bi man ma pël bi daa koy woowee sax nit la koo xamante ne nii dafa naqaree xam Ama mun nga koo gis ni tey mu ñuul suba gis ko mu weex Ama tey mu nga koo gis ni amul yaram wala dara mais Ama bu entraîné dix jours moomam boppam xale la wallaahi màggam des na billaay màggam des na waaw yow mi ko jege ñeme nga mu daw ni rinku mook mook Modou daje. bu koree Modou Lo leneen la ñuy wax yow Modou kenn mosu koo dóor mu daanu mais damay rek am ah, ko mu nelaw de ah. saat bi kenn nelawoogu si de ah. damay rek moo si njëkk a nelaw de njëkk naa kay lañ koy miine jàpp yaakaaroon leen gars yi tëf miine leen ak yooyu non non pare nañ fépp wala yaa amaar geek ay kabiyaar gérer nañ lépp ñoo ngi si ginnaaw rek naan leen nii la nii la nii la incha allah yëpp ñoo ngi koy teg amal jàmm yàlla yàlla <laughs>